fay dee ko fa xool mi nga ree jox may ree ee ni ree ko am dama ni ree yëpp loo soxla ci suuf naaj naka waar nag naka waar ça naaj naaj naka waar nag yaa ngi jàmm gëj a gisee waaye tey moom kër Lassukiri moo des fa la ñuy fa la ñuy teere yee nag. foofu moom moo leen gën a sadi ñoom ñëpp. dëgg la dëgg la Lassukiri waaw Lassukiri Lassukiri. def nii. xar mooy sànq xar bi. looy def nii xar bi nii. waaw xar bi la. sa xar moom dafa rafet sa xanaa mën nga koy jaay waaw loo koy def nii moom. dama ko doon sànq. set na de. waaw waaw gisoo ni mu setee. waaw set na moom a léegi nag moom da koy jaay wala loo koy def moom. non dama koy yar. da waaw. moom kii moom defe naa ne moom moom. wér na këng na nañ dem nag seeti bili. bili bili des. waaw waaw yow waaye na koy yar.